jërë ngeen jëf mbëkk mi barça wala barsàq di immigration clandestine gi l'observateur xëy nañu ca wax lool ku ko dégg jàpp sa gémmiñ ubbil yéenekaay bi keroog talaata marine bu Sénégal jàpp na ci géej gi gaalug loo ca gu yeboon ñetti téeméeri migrant ak ñeent fukk ak juróom-ñett ca ñoom ay sénégalais ay gambien ak ay malien waa DNLT di division nationale de lutte contre le trafic migrant ak pratique assimilée waxoon na ci gaal gi 348 migrants yi ñu ca fekk 30 ba solo dàllam dem ñu mas a jël gaal ba dem bitim réew ci gaal yi ci seen tukki ba histoire bu ci gën yéeme sa morom nga ni bii la ulay mentee di benn femme bu am ñeent fukket ak juróom-ñett ci gaal yi ca la jaare ba dugg Espagne nee na def na ci réewum Espagne fukket ak juróom li ko tax a jël gaal dem bitim réew nee na mooy jëkkëram dafa xëy xëy takkal ko wujj munu ko muñ mu bëgg a fayantoo ak moom tax mu xëy buubi bagaasam dugg ci gaal gi bàyyi ginnaaw jëkkëram ak juróomi doom yi ñu am Koura Thiaw di benn femme moom it bu jaare ci gaal yi ba dem bitim réew ko amul serviette hygiénique mu ne boo frèram bi mu àndaloon moo jël simis bi mu soloon xutti ko jox ko mu def ko serviette hygiénique jigéen yiy mbëkk gaal yi di dem bitim réew seeni histoire yu yéeme bu asu ndaw ci la bokk moom nee na bi muy jël gaal gi dem Espagne atum 2019 dafa ëmboon ba am juróom-ñeenti weer ci biir gaal gi ci la wasine doom ju góor xale yu góor yewoon ca gaal yi ñoo ko taxaw ba mu wasin xale bi bi mu juddoo ëndaaliwul bakkan ci la ko lëmasee sànni ko ci géej gi jéeri ji ak accident bu métti bi amoon keroog ca taseet ga ca Thiès na ne da doon jéem a doublé beneen tracteur ci aw yoon wu xat woo xam ne kenn wari su fa doublé ci la dalee ci kaw tracteur ba saaraan fii élèves yi ba faat ci ñoom ñett mbëkk benn potu lamp bu newoon ca yoon wi yoon wi dox diggante ndakaaru tiwaawoon ak ndar di autoroute bi soleil national mi ngi ñuy wax ne mooy projet bu mag bu mujj bu président national di Macky Sall bi mi ngi ñuy leeral it bi ak na mu war a tëddee bu jugee ndakaaru dëkk di yokkee nu nekk ci réew mi te suñu ko réglé wul laata ñu yegg ci élection présidentielle yi 2024 yi du baax ci candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi njëgu dund gu seer geek élection présidentielle yi bés bi le jour ci la xëy di waxtaane ba di ñu fàttali pétition buy wër dëkk bi nit ñi di ko signé ngir di naqarlu ak jéebaane courant bu seer bi moom bés bi la jour mi ngi ñuy xibaar di ne le 21 association consommateurs yi dinañu manifester ci réew mi ngir ñaawlu njëgu dund gu seer gi ci jamono joojee moom journal bés bi le jour mi ngi ñuy wax it ne njiit réew mi Macky Sall sant na premier ministre am Amadou Ba ngir mu taxaw ci ñu defab évaluation bu wér péng ci njëgu ndox mi njëgu courant bi njëgu téléphone bi ak njëgu internet bi lisé ko nañu moom président de la république di Macky ca ndajem conseil des ministres bu njëkk bi woon démb ginnaaw gouvernement bu yees bi ñu taxawal moom jiitu mi Macky sàkku na ci ministre yi ñu gën a seen bopp wàññi gonget gonget gi wàññi guuxileex wàññi tëgali yi nee na leen na ngeen modeste jege askan wi te di leen déglu fa la ñu ne conseil des ministres yi war am ci weer wi Sabassi Faye xëy nekk leeral ci njëkk décision bi Zi Sabassi Faye jël ci radiation bu Ousmane Sonko boole ceekit maye ngaañ yi journal bi bind ne moom Ousmane Sonko dugalaat nañu ko officiellement ci liste électorale yi